le merengue mi ngi ni tok maître war lañ koy woy tur bi nan la dan amar maître amar adama amar adama amar adama amar très bien euh amar bala ñu ci mbokk ku gor ki yow li ñuy commencé tay tës bi parce que couple ndjay bi yeen seen kër lañ dëkkoon mhm. maanaam fa la lakk nga xewe mhm. ah kon de lim ci mën a wax kenn mënu ko cee wax <laughs> maa fekke kay waay lakk ga bi mu amee mm. sa kër papa la mhm. yow yaa ngi dëkk ci wet gi mhm. même pas doo daw cinq minutes sax yegg si ah balaa ñoo ñëw nag ci ay affaire ñoom li ñu jotee dugg na fi a fii ni ñu dooree d'abord yéen euh, ana ci ban instant daal lañ jékki-jékki rek yéen woo leen yéen ñi moom kër gi aywa alors Ahmed euh, balaa dara nga baal ma rek ma ma ma ma quand jaale euh, mbokk ñi nga xam ni ñooy Xaadim euh, Njaay mm-hmm. di leen massawu parce que metti na trop loolu démb ku ñëw ci enterrement bi ñëw ci kër nga xam ni vraiment metti na metti na trop donc ñu ngi leen koy jaale di leen massaw di ñaan yàlla xare ko aljana voilà bon affaire bi nag bi muy am mm-hmm. man fekk na ma sama kër ba ma jàppanteeg ay nelaw ay environ ay une heure du matin. ci la ma ah, voilà. ay kon affaire bi guddi la. si guddi la. donc ci lañ ma woo sama benn locataire moom woo ki dëkk au premier. Mhm. ni ma yow foo nekk sa kër gi mi ngi lakk ma ne ko lan mu ni ma sa kër gi mi ngi tàkk. ci noonu laa jóg soluwuma sax sama téléphone laa jël rek taal sama oto daw jubali kër gi parce que man fi kër gi fi nekk ak fi ma dëkk. Mhm. soreewul kër gi mi ngi wetu école japonaise maa ngi dëkk côté Brioche Dorée bi. Mhm. alors bi ma egsee fekk naa juste ñu dugal Xaadim Njaay mi nga xam ni moo kii ci affaire bi ñu dugal ko ci taxi di ko yóbbu euh, hôpital donc ci laa ñëw constaté gis affaire yi di lakk voisins yi génn ma ni laajte ana sapeur ñu ne ma sapeur sànq ba léegi ñu ngi leen woo ñëwul ma jël sama téléphone woote mm-hmm. jotuma leen ma insiste insister insister jotuma leen mm-hmm. ci laa taal sama oto nag jubali caserne ba parce que mënu ma woon xaar feu bi mi ngi doon jël ampleur ah dafa continuer dafa donc ci laa dem caserne ba bi ma ñëwee alerté leen ma leen mais yéen ñi ngi leen di jotuñu leen Maris dafa am kër gu fay lakk fan ngeen nekk donc ci lañ li ma bon ñun dañu am problème réseau te du su du suñu du ci ñun ci waa Sonatel la man leen mais attends <laughs> dans quel pays on <laughs> après ci noonu ci la waa jël téléphone am woote ci ñi nekk jëppal waa sapeur bi nekk jëppal ci lañ soog a déplacé wu bi ñuy ñëw sax pratiquement fekk nañ ñu ñu fay lakk gi yépp mm-hmm. donc ma ci profité di di di di remercier voisins yi ñi nga xam ne ñoo dëkk foofu ci koñ bi parce que vraiment bu dul woon ñoom affaire bi mën na gën a garaaw ñoom ñoo ñëw taxaw mag ndaw xam nga maire ñëpp ñëw utiliser seen doole ba euh, monopoliser euh, feu bi bi sapeur di egsi daanaka fekk nañ lépp fay donc Euh, noonu la affaire bi demee Ahmed. Mhm. léegi nag maa ngi dégg ci presse beeg ci réseaux sociaux beeg nit ñi di wax rek. ku nekk version bu ne ñu ngi koy indi. man nag li ma fekkee ak li ma gis laay wax ah ñu ngi naan ay da ko takkal ñaareel ak takkalu ko ñaareel ak da koo jëndal oto di ko defal surprise ak yooyu yëpp amu ci. takkul jabar. yooyu yëpp man de yëgu ko te xam naa famem tamit yëguñu loolu. lu am li am loolu loolu ñuy wax noonu. Mhm. fameem yëguñu ko. maanaam ay oto la ko yooyu amul. kon lan moo am. yooyu amul. xuloo parce que man bi fee bi amee noonu noonu vers une heure du matin. après bi bi ñu fayee lakk gi ba pare. Mhm. deux heures du matin ba cinq heures du matin maag fa ñoo nekk hôpital. frère u Xaadim. frère Xaadim. Ah, hôpital euh, kii bi nu mu tuddati Grand Yoff bi. waaw CTO CTO. Mhm. ñoo fa nekk ñoo fa nekk ba cinq heures du matin. man fa laa ko bàyyi parce que moment boobu mënuñu ko woon gis. ci la ñu médecin yi xamal carrément ni mënu leen ko gis man fi laa ko bàyyi foofu ni ko léegi man maa ngi dem sama kër tëddi mais incha allah su ma xëyee dinaa ñëwaat alors le lendemain demaat naa mais mënuma ko gis ci laa woo frère bi mu ni ma ah man maa ngi nii sax sànq laa fa jóge ñëwoon. mais yow lan nga am comme information ci nii moo sabab lakk googu wala xeexoo wala dañoo xuloo qu'est-ce qui se waaw loolu laa lay expliquer information moom. Mhm. buy waral ni lii exactement moom moo tax soxna si Euh, taal jëkkër ji loolu kenn xamu ko bu dee dëgg rek a tax daan nañ jàppante nag. ci biir kër waaw daan nañ xuloo boo laajee voisins yi nee nañ daan nañ tëdd ba ay 3 heures du matin ñuy xuloo xam nga à chaque fois daan nañ jàppante ñoom ñaar. Hmm. mais cause exacte bi li tax. jour boobu noonu. Hmm. ndaw si dama ko mën a wax taal ko loolu. xëy na ndaw si ak waa ji rek a ko mën a expliquer. Euh, te bu ma sukkandikoo ci voisin bi nga xamante ni si bi xaadim di ñëw di gaare oto bi. mooy ki ki ma taxalool kër noonu. moom gis na xaadim gaare oto bi. nee na bi xaadim gaare oto bi dugg ci kër gi. cinq minutes après la dégg ay coow. moom moom boo moom boo duggee appartement moom moo tiim xaadim. waaw mu dégg ay coow coow mu sëpp ci balkon am ni lan la lu xew mbaa jàmm la. Mhm. ñu ni tekk. noppi ñu ni tekk noppi. nee na même pas 30 secondes. Mhm. mu jékki-jékki rek dégg wuyaay yooyu wuyaay yooyu sama jabar taal na ma mu sëpp rek gis waa ji di lakk. ci la daw ñetti ñett escalier yi wàcc alors sama locataire bi nekk ci ci rez de bi moom génn rek yam ci xaadim muy tàkk ci la jël ci la jël si euh, woon ndox bi nekkoon foofu rek xëpp ko ko mhm. parce que moment boobu euh, il était paniqué xam nga ku lakk sax duñ ko xëpp ndox mais xaadim fi mu jaaree parce que kër gi ñaari port la mhm. da ngay dugg ci biir am na beneen porte bu ubbeekoo ci biir nga xam ni moo am accès ci fi lii ñi nekk ak yooyu foofu la xam na xaadim doon fóotee ak weer ak yooyu xaadim nag ci porte boobu la jaare xëy na bu jaare woon ci beneen porte bi nekk ci mbedd bi foofu dinañ am possibilité am xëpp pour mën ko ko xëpp mm-hmm. mais porte bi mu jaaree nag bi mu fëlee euh, mi ngi ki dëkk ci suuf ci rez de bi alors kookoo ko xëpp ndox beneen femme bi dëkk à aussi génn xëpp ko ndox après finalement affaire bi fay ñoo femme boobu jëkkëram moom moo jël euh, xaadim mm-hmm. arrêté taxi taxi bi ñu njëkk arrêté sax dafa bañ sa dani kii mënuma koo yóbbu ñu arrêté beneen taxi kooku moo ko nangoo jël yóbbu ko hôpital mais boo bëggee dégg dëgg rek Ahmed mhm. nit ñiy wax dañuy wax rek te yaakaar naa histoire bii bari nañ trop na trop mais ndaw si dafa taalaale boppam wala takkul moom euh, non ndaw si jot blessé na parce que bi mu bi bi affaire bi amee euh, ndaw si blessé na parce que bi mu génnee appartement bi ñëw ci euh, beneen dafa daw dafa daw génn ñëw ci beneen appartement bi nekk femme bi dëkk à mhm. ñu koy woowee Rose ci la ni ko xaadim mi ngi may mi ngi may dóor affaire yooyu. Hmm. ci la ko Rose xool ni ko yow sa fii yëpp mi ngi lakk affaire yooyu. moom tamit bon mais moom côté bi loxo bi nii côté bi ah, moo jot lakk. donc moom tamit ci lañ ko ci lañ ko yóbbu. mais yéen ñi doon yóbbu xaadim bon yu fekk nga ñu yóbbu ko mais ñi ko doon yóbbu la la da koo xëpp essence wala. waaw a taal mënut gaawee noonu ba xaadim am faiblesse boobu. non essence la est-ce que essence la. essence la parce que boo duggee sax ci ci ci appartement bi après da ngay gis. essence dong mën a gaawee waaw waaw mais xanaa kon loolu kon lu ñu préparé la essence lan lay def ci biir kër. Ah, loolu tamit Ahmed. en tout cas bu doon ay pétrole ak yooyu dinañ ne. Euh, xëj na ndaw si lii la daan booyalee temps yi muy passé wala am na lamp pétrole ci kër mais essence. na nekk essence wala mën aussi parce que pétrole itam bu laalee tissu buy tàkk day day day. non boo duggee li ni muy xeeñ. dafay xeeñ ngetu essence. mais moo tax ma ne xanaa loolu kon lu ñu pré parce que ngetu essence moom benn la moom. Mhm. am na roowul sax ak li gasoil di xeeñ. effectivement. moom daal li ci mënti xew daal.

déggoo déggoo fi may waxee. ok ah, ok ah, maanaam bu dee lu ñu préparé xam nga su doon ñoom dañoo ñëw rek xuloo. Mm-hmm. histoire comme couple rek ñëpp ni ñu koy defee nii rek jotee rek ak madame. Mm-hmm. lu tax am bi naaje léegi lii bu dee ca saasa mm-hmm. kon xam nga kon loolu duñ mën a préparé bay wuti ay essence ak nangam sax. mais bu histoire boo xam ne am na quatre heures de temps vingt quatre heures ci ginnaaw. xam nga li ma la. kon loolu mën nañ ko préparé. wala. waaw moom kay moom xeex moom. bu ci xëpp essence wala pétrole taal amee rek. pré lu ñu préparé la. Mhm. bu préparé bu amee nag xëy na jàppante amoon na euh, laa veille. Mhm. waaw wala nekkin bi métti léegi léegi kii euh, Amar. Mhm. Euh, wax nañu aussi ne moom xaadim. Uh-huh. goroom. mooy wasilaam mooy sëriñam. loolu est lu am la. waaw loolu loolu lu am la parce que yàlla dafa dogal mook sama benn cousin bu ñuy woowee Sidi Jaxumpa. ñoo bokk benn sëriñ. muy sëñ Babacar mbàkke mu kabaroo da démb ci enterrement bi sax moom moo ko taxaw moo ko ñaanal. moo moo jullee. moo moo taxaw waaw moo ko taxaw wax dëgg yàlla moo tax man la mbir mi ku ciy wax na xam li. waaw lu si ñaari famille danoo jege. ah ñaari ah. famille danoo jege. parce que moo ko taxawu bi ñu demee ci armeel moo ko ñaanal bi ñu dellusee ci kër gi moom moo jël kàddu wax dëgg yàlla moo taxaw moo wax wax ju rafet. dëgg yàlla wax jur rafet la wax famille bi aussi jox ko cër jox ko gëdd moom moom moom mi nga xam ne moom mooy waajuru xale bu jigéen gi waaw donc famille bi jege na tellement que nit ku ciy wax ku ne na xam li mu ciy wax te famille bu jullite lañ wax dëgg yàlla li ma gis ñoom famille Xaadim Njaay mhm. famille bu jullite lañ bu am sutura gëm yàlla surtout yaayam parce que yaayam malgré lépp bi ñuy jullee sax pour te dire Ahmed yaay ji dafa ñëwoon fi ñuy jullee yàlla bi ma tiim xam na ko ànd ak sang froid ah. gisuma ko benn yoon mu tuur langoñ bi ñu suulee ba ñëwit moo doon dëfal sax nit ñi faf donc mu mel ni ah, seytaanee ñëw rek ak ak ndogalam ak dundu gu jeex ak ndogalam ak dundu gu famille bi euh, jabar ji ma manit ni ma ko xamee woon wax dëgg yàlla mhm. ku baax la parce que damay seede te yàlla rek tax mhm. li ma xam ci moom parce que yàlla dogal na bi ma leen léeg léegi xaw naa yàgg tuuti mhm. musuñu maa wan muy jëkkër ji di jabar ji musuñu maa wan jikko joo xam ni mhm. man dama naan ñii ñu bon lañ wala ñii ñu ñu ñu xamadi lañ ñu ñu ñu am yar lañ lañ la woon am yar lañ ah. ah problème nag dina am ci diggante jëkkër ak jabar doo xam ne ci la dëkk ah. yow doo sax xam te ci la voilà ci la dëkk c'est fréquent voilà c'est fréquent donc mhm. loolu daal mm, maa ngi ñaan askan wi ñu ku ciy wax ku ciy wax te xamoo nga wax ci loo xam rek boo xamul nga noppi. walaay xam nga mbir mi c'est important xam nga mbir mi nee ñu kenn bi la xew mhm. lundi mardi mercredi. Mhm. ba tey la jeudi. waaw boobu ba léegi ba tey tey tey la ma kenn mujjee woo avant tës bee commencé. Mhm. dama yéen li xew Marisa xanaa yéen. loolu leen ci wax loolu kay weesu na tës. Mhm. waaye ñiin ñin danoo bëggoon. parce que man dama ne tant que man awma kenn koo xam ne dafa dëkk ak ñoom alaaj xam nga fii wala mbokk xaadim wala mbokk ndaw si wala ku dëkk ak ñoom wala ku leen jox kër gañ dëkk. wala seen sëriñ wala seen papa wala seen yaay.

li leen neex. voilà li leen neex donc te yaakaar naa booy wax it da ngay wax loo xamante ni si leer na la. surtout diggante bi parce que nit ne da xool ak sa tëraayal bàmmeel. te ba fi may wax ak yow nii démb rek maak frère am bi ñu ngi wax mais ñoom sax boo leen laaj laajee sax nii nii nii dañ duñ la wax sax cause bi. xamuñu xamuñu ko te yaakaar naa ñoo gën a jege euh, mbir mi. xam nga ñaar yi dafa am sëriñ bi nga xam ne mooy sa wasila bu wóoloo sa jikko ba jël doomam dénk la ko. Mm. waaw parce que séentu na ci yow lawtan gu rafet. waaw am na loo ko wan. waaw am na loo ko wan. Mhm. waaye boo ko wanee naka su dul noonu du jël doomam mu dénk. di la ko dénk sëriñ. waaw jël doomam doomam. Ah. may la ko. voilà ah. ji fonk naa ki nga ki jël ay doomi jàmbur itam am ci ñoom ay junni. dem di di di di leen di leen yar ci lislaam di leen tàggat ci lislaam mhm. xam nga ni kon kooku yar benn doomam tawu ko. tawu ko. Mhm. kon nga xam ni ñaar ñi seq yëf yi dañu leen a yar. effectivement waaye dogal bii jiit na seen juddu jox. wallaay wallaay li bees mhm. te bi mu jibee ñu bëree bëri loxo dar gémmiñ mooy. Mhm. papaay xale bu jigéen bi. ne ñaanal ak waajal xaadim. waaw loolu loolu info de taille info de taille parce que ku xamul li nga ne. mbokk ku jigéen ki de xam naa fu ñu romb mbokk ñoom Xaadim Njaay àdduna tukki. àdduna tukki. par waxuma la mbokk mais bàyyam ci boppam. Mm-hmm. moo ko taxawu jullee ko sulku. Mm-hmm. waaye ah, ah moo tax moo tax alaaj <laughs> tey taamu nañ ko ci ndox waaye ci nit la gën de. waaw ah, ci nit la gën. léegi nag lay xew après loolu affaire loi la. lay xew ëllëg it affaire mm-hmm. yàlla la. waaye nit ku ci nekk daal xam naa ne fa nga war a yem moom. na nga fa yem rek. Ah, information bi ma am par rapport ak euh, famille bi. mooy amul plainte. pour wax ni la rek nii ñaari famille dañu jege famille bi deful plainte ci li ma am man te loolu frère am moo ma ko wax nee na mu famille bi xalaatul sax yooyu. non loolu nag laa la wax moo tax ma ne la loi nag. loi même bu plainte amul alaaji. Mhm. lo la loi moom c'est la wax mhm. loi moom ñoom dañuy def yi ñoom seen i euh, euh, liggéey ëllëg def ay enquête def lii xam lan moo waral soo xi léegi lii fa muy mujjee nag ñoom moom loolu moom ñoom ñoo ko xam. Mhm. ah. ah? en tout daal waaw doy na waar. <laughs> kenn mënu laa wax kon léegi fi mu nekk nii. alaaji euh. ne fiiraange moo leen boole parce que adduna bi yëpp doomu Sénégal yi nekk ci biir réew mi bitim réew yëpp gars yi alaaji jalousie lañ wax. waaw tey boo xoolee yenn journaux yi sax yenn njàngat reportage sax ñu ngi koy defee ci wàllum polygamie ak jalousie nangam sax du ko def kenn. Hmm. ñëpp fiiraange lañ wax. Hmm. ne fiiraange moo waral xale bu jigéen bi. waaw waaw xam nga mën na nekk sax firange on sait mën na nekk firange mais ah, maanaam firange ci ban côté waaw ci ban côté parce que bu nee dafa takk voilà bu nee dafa takk wuju nee nañ takk yi amul xamoo ndax ñoom ñaar xaadim xëj na dafa guddee wala heure bi mu doon ñëw xamoo ndax mbirum portable yi rek encore kii wala fii kan la kii ak mais ba léegi nii yow nu ku góor ki parce que histoire bi mu amee xaadim tuut la ci teg nekk daana comment waaw kon kooku moom waxatu waaw kooku dootul nettali waaw kay waay léegi kon ndaw si moom moo war a ñëw wax journaliste yi ne leen lii ak lii ak lii lañ jote te ndaw si tal la leneen du nettali waaw nee nañ dafa fekkoon sax mu war na lor mi ngi woon à terme mi ngi woon à terme <laughs> déjà ci lendemain gi la la am doom la am doom waaw ah, kooku ok jigéen ju toll ci matu waaw euh, ni muy niire kantan ni muy diise ak ni muy sonne xam nga ni ci pexe bu yeggee ci taal góor mm-hmm. mu tàkk sa sa jëkkër xam nga ni dund ku góor ka moo jeexoon ndax ari jàllu xawwaamun ala ne góor moo ëpp doole jigéen foofu ndolle mhm. nga boole si nag nekk ci wu mat ak ni mat mettee mais alaaji jigéen bu meree mhm. alaaji jigéen ju mer mais na ngay tal mais kii ak ci wu la ne alaaji déggoo ma de jigéen ju mer mhm. wala jigéen ju yàlla nattu fiiraange roofu la booy matu sax booy matu alaaji mën ngaa attaqué sa jëkkër waxuma la ñu naan la yaa ci juróom-ñeenteelu weer de bu yàlla dogalee ngay matu ci kaw taabal ji ñu ne la yow sa alaaji bi léegi lii. Mhm. alaaji diggante boobu mën nga faa jóg. def fa giraawaali sotti diwlin bu tàng wala taal wala jam ñëw te daal yeggali. Mhm. yàlla ñu yàlla musal ci jigéen bu fiir alaaji. jigéen yàlla mu laa lañ pexe. Mhm. xam nga loolu seen weenu pexe alaaji. attention de. non néggal kii di laajte ndax tudd nañ doom ji barki démb la am doom dafa amagum semaine talaata ne nañ la am doom. Hmm? ah baax na. si mais xam nañu man Babacar dama xam ñaari mu kabaroo. Mhm. Babacar Mbacke mu kabaroo mii ak Babacar Mbacke mu Kaolack. am na benn sëriñ Babacar Mbacke mu kabaroo muy politique. Mhm. te Moustapha Diop seeti woon ko ak Babacar Mbacke mu kabaroo mel waaw bii sama xarit bii def affaire jàng yeeg yooyu. bii mooy bu Daaru Salaam. ah kooku mooy sama xarit bi waaw mooy mooy mooy mooy bu daru salam ñoom waa daaru salaam lañ quoi babacar mbàkke mu ko bëroo mu daaru salam la yaay la mais adama kooku sama kooku sama xarit la sama sëriñ la naa koy defal publicité mi ak ne allahu akbar moom allahu akbar ndeysaan si lu yàlla. dégg xool kii ne na ma message. Mhm. nee na ma ndeysaan Ahmed mu kabaroo. Mhm. sa xarit la. daf laa fonk xam naa ni mi ngi lay déglu. wallaay ndeysaan. màggalam gi muy def ñetti at yëpp alaaji man maa ko defaral voix bi publicité. ay mhm, waay jile moom la kay. moo tax gis nga mbirum yàlla di ah, mais kon Adama kon ñu ngi lay gërëm di sant. waaw yaakaar naa ne alaaj mhm. mhm. luñ lay meree luñ lay xeebe. alhamdulilah rabbil mhm. man amul lu ma gisul man. lu ma gisul Facebook bi xibaar man xaw ma yenn saa yi gars yi dañuy.